donc euh, aussi par rapport ak euh, sorti la fois de la dernière fois maître euh, Mbaye Guèye euh, bâtonnier naka nga jàngatee sortie bi. waaw sortie boobu dama dinaa ci sawar a wax parce que man sama thèse de doctorat ci UEMOA CEDEAO ak CEMAC laa ko bind. li tax ma siy wax di également remercier solennellement le bâtonnier Mbaye Gueye mooy lan tey les états mën naa ne sax les présidents de la république ont une forte mémise sur les décisions sur l'application des décisions rendues ou bien des décisions prises par les organes UEMOA, CEDEAO et CEMAC dañuy ñëw en conférence des chefs d'État ñu jël décision mais bu la neexul yow président bi doo ko alors que dañu ni ci maanaam droit communautaire dafa ni il y a principe de l'application immédiate c'est-à-dire décision bu ñu jël au niveau communautaire état bi daf ko war a appliquer immédiatement mais lu tax état bi du ko appliquer ba pare organe communautaire bi du ko wax dara parce que dafa am insuffisance yu am au niveau des organes communautaire insuffisance boobu relever naa ko mooy les possibilités pour l'organe communautaire de donner des injonctions au États maanaam état bi nga xamante ni mooy Sénégal su organe communautaire bi par exemple CEDEAO jëlee benn décision su ko état du Sénégal appliqué wul organe CEDEAO amul benn possibilité weñ loxo état du Sénégal pour mu appliquer ko da lay wax l'impossibilité de donner des injonctions à aux états donc bu fekkente ni yow organe communautaire nga CEDEAO nga par exemple wala UEMOA nga nga nekk ci kaw décoiffer état yi te yow bu fekkee jël nga décision état mën a toog bañ ni du ko def te mënoo ci dara kon est-ce que yooyu est-ce que tey jii jotul ñu revoir même ces organes communautaires là CEDEAO UEMOA CEMAC euh, euh, euh, CAC SADC e en Afrique du Sud est-ce que tey jotul ñu revoir leen ndaxte kat bu fekkee da nga bokk fenn da nga war a tënku ci ñooñu décision yi ñu jël mais bu fekkee Côte d'Ivoire lu ko neex lay appliquer sa peut même aller en contre-pied avec l'organe communautaire su fekkee Sénégal lu ko neex lay appliquer muy dem contre ak l'organe CEDEAO wala UEMOA je pense que aujourd'hui on doit revoir ces organes là. donc mën nañ jàpp ni kon euh, ñu ngi def lu leen neex que ni tey jii suñu suñ su leen neexoon tey par exemple euh, noot seen adversaire politique euh, sans dara fekk leen ci. mais mais loolu la tey bu fekkente ne da nga nekk président nga am ak problème sa benn opposant opposant bi mën na def ay recours au niveau national cest mu dem tribunal jóge fa cour d'appel cour suprême su ko neexee moom mën na dem attaquer la devant la cour de justice de la CEDEAO bi nekk Abuja wala boog cour de justice de l'UEMOA mais bu fekkee cour boobu dafa rendre une décision mais état bi bu ko neexee du ko appliquer te opposant boobu du am benn moyen de pression xam nga li ko waral lan la mooy ni état yi ñooy cotiser pour jox xaalis CEDEAO UEMOA CEMAC je vais vous expliquer ça de manière très simple tey marchandise bu dugg au Sénégal port lay jaar su jaaree port am na ñuy wax les DD les droits de douane après les DD mu am li ñuy wax euh, selon le produit su fekkee taxe spécifique da ciy appliqué dañ ko ciy appliqué ou pas am ensuite li ñuy wax TVA mais dafa am li ñuy wax prélèvement COSEC un prélèvement CEDEAO, un prélèvement UEMOA. C'est-à-dire que nous les Sénégalais nous les consommateurs ñooñu ñooy jox état bi ci marchandise yi ñuy dugal mu ciy prélever di ko dugal ci compte CEDEAO compte UEMOA. donc c'est la raison pour laquelle état yi mën nañ de manière indirecte ñoom ñooy financer CEDEAO ñoom ñooy financer UEMOA. mieux encore da gis ña liggéeyee du ñu fay impôt. salarié sénégalais day fay IR sur les salaires day fay TRIMF et cetera. Mhm. mais fonctionnaire CEDEAO du fay impôt sur le revenu salarial. impôt sur le revenu salarial du ko fay parce que dañu ko considérer comme quelqu'un qui est du corps diplomatique. Okay. donc c'est autant de question peut-être qui mm -hmm. entourent cette question là. moo waral tey état bi bu deful dara it CEDEAO du mën def dara. ok donc euh, une dernière question rek dialogue politique bi lan nga ci xalaat. waaw dialogue à ce qu'il y euh, dialogue su ma sañoon képp kuy opposition di nga dem ci dialogue bi su sañoon képp kuy euh, société civile di nga dem ci dialogue bi su ma sañoon képp kuy chef religieux parce que ñoom dañ di fàtte nitu diine yi su ma sañoon ñu dem ci dialogue bi de sorte que dialogue bi bu mu nekk rek le président wala la partie et euh, de de l'exécutif opposition et le pouvoir waaw opposition et ah. mais que ñu xam ni Sénégal la ñuy dialogal ñu impliqué ci bu baax a baax nitu diine yi. les oustaz et cetera. man tey su ma doon choisir équipe bi war a bi war a piloter dialogue bi. Mhm. dinaa ci dolli koo xamante ni il est religieux. ok cest doomu daara. Mhm. su ma ko ci doon su ma doon choisir. Mhm. boobu benn la beneen bi su ma amoon lu may wax par rapport au président dinaa ko ni bul fixer sax. kiy piloté dialogue bi c'est-à-dire bàyyil ñu si des ñu tànn ki leen doy maanaam président parti présidentiel bi bu ma sañoon ñoom du ñu wax ni diw mooy piloté le dialogue. mais non mais parce que concertation après concertation je pense que euh, ils ont choisi une personnalité neutre. non mais xam nga mooy lool xam nga concertation la ñu wax. mais pour wane ni ñoom vraiment lii yitteel na leen nañu bàyyi opposition bi tànn leen ki ki ki ki ki nga te ne moo neutre à leur avis. mais bu ñu nee concertation rek après opposition bi ñu bëri demuñu demaguñu bokk. parce que dañ ne il faut ñu def tel tel tel chose pour dem dialogue. Mm-hmm. donc président daal waroon na leen bàyyi ñoom neen tànn leen ku leen neex ngeen ñëw ñu dialogué. aussi ñu mu mu ñu ñu travailler sur les TDR les thèmes de référence du dialogue. Mm-hmm. maintenant bu ñu ciy travailler nag moom mën na envoyer benn émissaire am ñu xool lii wagat la ñu war a dialogué lii la ñu war a dialogué lii la ñu war parce que dialogue bi du pour président mais c'est pour tout le Sénégal. Mm-hmm. donc sa kàddu gu waaw sama kàddu gu mujj mooy damay leen di remercier déjà mais di wax rek ni autorités yi nañu gën a veiller dafa am drame bu metti bu am yëmbal sud ci quartier Dame Seck ñaari xale yu ndaw ñàkk fa seen bakkan te bi loolu amee dañ ko wax nii rek après noppi alors que drame boobu am na yeneen yoo xamante ni mën na ñëwaat le préfet les sous-préfets nañu dugg ci koñ yi kër goo xamante ni lii ce n'est plus habitable ñu di ñëw daaneel ko ndax loolu ñoom ñoo ko war def sûreté des personnes ñoom la war les maires les maires des communes nañuy ñëw di wàcc ji xool kër yi nga xamante ni baaxul plafond yi di waaj a daanu miir bi kii na koñ boo xamante ni yow tabax nga ba ci genn wàllu koñ bi yëpp tax tabax nga ko taf ko sa kër loolu na ci autorité ñëw te loolu dafa bëri ci banlieue bi def nañu pétition dem ba ci préfet wax ko ni ko yëmbal de lii ak lii ak lii préfet ñëw jox ay sommation boobu lañ ko gëj a gis donc vraiment que les préfets fassent leur travail loolu daal moo nekkoon sama kàddu gu mujj